ñu def mbéy defar chemin de fer ñun cheminot boo woonee dañuy defar chemin fer mu si Sénégal boo woonee dañuy defar chemin fer mu si mais defar bu yàq rek kenn ko ba fi président la République ñëwee fii Thiès def nañ benn mémorandum ñëw jébbal ko ko à 5 heures du matin xam toog fa 9 heures ba 5 heures du matin ñu ne suñu chemin de koy defar ñu defar ko boo xam ne ñu si am xel ñaar. mu ne bu yóbboon ngeen seen xal jàll chemin de fer dinañ ko defat do do do sam jafe-jafe mais tay ni ci jafe-jafe tay monsieur le président la République la nga waxone gis nañu leneen moy jafe-jafe ñu kenn bañu ñu defat sama de fer kenn bañu ko kenn bañu ñu defat sama de mais naka nga koy defaree kan ñu ñuy waxal ak kan defat sama defar chemin de fer xamaguñ ko ñun sur la mu nek hasard bi suñu tey chara bi ngeen indi nu ko sama camarade bi waxee yéem nañu ngeen wax seen PCE boole leen ci chemin de ngeen wax leneen ak boole wu leen ci cheminot yi tey bu leen indee lii dinañ jaaxal ñun te ñun léegi président de la République li ñuy waxal lu ñu wax tey bu subaa ñu wax leneen sunu ministre moom mosu ñoo recevoir ba mu ñu fii Sénégalais yi ak Maliens fi ñëwoon te gënoo ko dox. moom pour ñoom chemin de fer matuwaay bi si am defuñu ko tey ñu ne léegi ñu ngi def beneen chemin lañ jël chemin bi ñu jël mooy bari tey ñu ngi arrêté te boo demee port ñu daan dugg chemin de fer nee nañu ñu ngi jël seen bagage bu jël oto tey am na bato yoo xam ñu ngi leen dañ ne bu ñu ñëwee ñu leen defee ñu jël ay oto ñu dem benn la ne

sëriñ bi bu nga arrêté li fi nekkoon bu ko tagg si yan critères yi ko teg ak si yan anam maanaam ñu ko teg ba tegu situation bi ñu nekk. Ah, chemin de fer am na chemin de fer am na plus de cent ans tey ñu koy discuter chemin de fer bu doon seen bàyyi chemin de fer mënul leen tur te chemin de fer bi mu toll tey ah lu musul am dina am depuis 2003 ba léegi musuñu am

li ñuy def ni di biir collège boo la si dugalee seen loxo mu lépp dina yàqu mun ngeen defar chemin de fer en douceur te kenn du ko yëg loolu wax nañ ko ba tey yéen journalistes yi fekk ngeen ñu koy wax chemin de fer mënuñ ko defar li mu bëgg mu defar ko en douceur mais tey de dara xewagul sept sept mars ñëwagul ñun cheminots yi sant nañ ko li camarade bi wax dañuy def dinañ ko déposer légalement en kii de droit nag ku ñu war a waxoon dinañ la wax mais fi ñu jëm laa la wax ñun chemin de xamatuñ ñun daal chemin yi amatuñ moo waraloon ne tey suñu wote bi parce que yàgg nañ ko wax yàgg nañu jooy woote nañ fu ne.

12 heures amuñu benn conclusion bu jot kon lan la ñuy mën nëbbatu ak lan la ñuy def si ginnaaw xamuñu ko moo waraloon daal tey sunu sunu wote pour éclaircir nii li ñu daan wax démb ak bët démb et cetera camarade loolu laa doon wax